jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa su ne mbokk yi ñu ngi fii ci Cité Aline Sow seet si fi xale boo xamante ne ndaanaan la ci làmb gëjoo leen koo gis waaye daaw bëri na ay sorties yoo xamante ne def na ci ndam lu am solo kooku moo war a bëreeg ndaanaan bi muy général Malika kooku mooy fils de Balla tey fils de Balla la wasaare làmb seet si ngir ñu waxtaan waaye dañ koo fekk fi muy entraîné dugg xool fils de Balla nan lay waajee ko mbaam ak ci lan la nekk gëj nañ koo gis fan la fils de Balla nekk sëñ Bas ay ca ñu jàmm heure bi nga ñëw ba ah mais gis <laughs> so bopp nii kon. xam laa ne lii moom sëñ Bas baa ngi sëñ Bas bee lii moom gën a diis ci li may yàlla. lan bi ba. waaw ah, loolu ku nekk ak sa métier ñun lii mooy suñu métier moo tax ñun xam nga ñu dem la defi leneen moo tax. kaa ñu ràcc sëñ Bas xool fu ñu toog waxtaan bi gën a ala doome yaa ma gën a xam. jërë ngeen jëf mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon ci biti sànq rek ñu ngi nii toog ak le grand champion fils de Balla nga xamante ni kenn du ko nataabale ci làmb ci preuve yi mu def ci làmb ci bëre bi muy def ci làmb daaw nag lañ ko mujjee seetaan ci stade Diom Iba Mar Diop mu bë arène nationale mu bëreeg Tapha Leer euh, léegi nag wolof daf ne tungu na du teew ñuy natt ci ëkk dañuy waxtaan ak moom bàyyi ko mu wax fi mu jaar ci làmb ak fan la jóge ak combat bii di ñëw nan la koy waaje Fils de Balla maa ngi waaw Dieu maa ngi fay ginnaaw bu ñu sant yàlla. julli si yonent bi ñu ngi suñ suñu ñaari waajur bu baax di gërëm sama papa ak sama yaay bu baax a baax di gërëm tamit sama sëriñ sëñ Moussa Nawel sëñ Xaadim sëñ Moussa Yin sëñ Abo sëñ Fallou njabootu kër sëñ Moussa waa Basiru yëpp kër sëñ Moussa Nawel gi di leen gërëm bu baax di gërëm tamit waa Géejawaay rawatina waa école du Balla Gaye amoo 456. ASC yi nekk Géejawaay yëpp maa ngi leen woo ñu ñëw jàpp ci combat bi di gërëm tamit. Goro Thiès maa ngi koy gërëm bu baax Goro Thiès maa ngi koy gërëm bu baax Mame Boye Diao ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen woo waaw ñëw ci affaire yi. di gërëm ñëpp di gërëm tamit sama papa ma sekk Thiam sama papa Kéba Kanté ñu ngi leen di woo ñëpp jàpp ci combat bi sama père Omar Wade waaw. Sa Balla kañ nga dugg ci làmb. man 2012 laa dugg ci làmb. 2012 mhm, jàpp 2013 yooyu. laa bëri sama premier combat. mu bëri ko kan. sama premier combat kii laa bëri sang. sang laa njëkk a bëreel. man amagum naa douze combats douze am. am naa victoire deux défaites ak benn match nul. kan ak kan moo la daan ak kan nga nii la. Calambeer moo ak Boursine man nii rek Boy Seye 2. Boursine man bu baax waaw Boursine man mii la booy Seye 2 men. Boy Seye 2 waaw. Boy Seye 2 dafa wex xat. waaw combat bu métti lañ bëri ma ak moom xam ne ki ñaari combat xale moom du yomb. Mhm. nga jugee ci Boy Seye 2 jël kan. <coughs> ma jugee ci Boy Seye 2 après kan laa bëri la. ba mu jëlee Boy def defe naa <coughs> xaw na fàtte naa ko de ndax loolu daa xaw a yàgg de. <coughs> après bi nga jugee ci loolu yëpp. nga jékki-jékki jël Tapha Leer lan moo waraloon nga jël Tapha Leer. trois boobu làmb ji làmb ji amateur yi ko soxla woon boobu suñ ko ma waroon a taxaw bu yàgg chaque année rek muy daw mais ba mu war a taxaw daa taxaw. moo tëggoon làmb jooju. Sam maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant Sam sama waay la. Mhm. Sam tëgg làmb ji ngeen dem arène nationale. Mhm. dafa leer dafa mel ni lam la waxoon ci signature bi moom lañ jëfe ci làmb bi nee na la zongale rek nga am ci làmb ji nga ñëw zongale ko. Ah, moom moo xoole moo wax loolu kañ te xoolee bu ma def ko loolu kañ. moom mooy cuune rek kon ko zongale laa am kañ xoola ba daanee ko ko moom mooy cuune waroon na ko fatt xool. Mhm. ñu am lu bari bari bari dañ koy seetlu ci làmb ku dugg ci làmb 2012 2013 ba tey ñu ngi ci 2020 fépp fu ñu macha allah to am nga dayo gi am nga tolluwaay gi am nga taxawaay bi ci mbër lan moo waral euh, Fils de Balla taxawaay ta retard bu yàgg bi ci làmb retard bi. pourtant man retard du sax. man jàpp ma dama retardé man am na sama mor yu ma jiitu ci làmb fuuf am na sama mor yu ma jiitu ci làmb fuuf te li ma def sax dafa guñ ko man maa ngi bëre combat maa ngi bëree grand combat bi mooy def naa bi mooy sama cinquième grand combat te man naan ba ma dugg ci làmb yàggul par rapport ak ñi nga xam def def dix ans ci làmb mosuñoo sax bëre spécial. mais xam nga ñooñu ñu ci bari ci làmb xëy na macha allah am na fu leen làmb teg waaye am na loo xamante ne làmb yaakaaru ko ci ñoom waaye yow boo dugg see kenn du laajte ana mbër mi bu ñu gisee Fils de mu dugg si ci taxawaay gi ci dayo gi maanaam fi mu toll nii grand contre bi ñu doon wax ci làmb Fils de waroon naa bokk ci petit yi laaj grand yi loxo. ah loolu moom dëgg la moom mais lépp loo gis rek nànk-nànkal daal ñun ñu dara ay xale lañ dañuy liggéey rek hmm, yàqamtuwuñu dara dañuy liggéey rek. nga jóge ci làmb jooju jël général Malika. Mhm. gis nga général li muy def ci làmb. Mhm. làmb simple yi mu ngi toj. bëri dóor bi waxaale wu ma ko nga gis jàng général ni mu toll ci dayoo nga dem jël général lan moo tax nga jël ko. général lan la fi def loo xam ne man defuma ko bu dee doole ëpp ma doole bu dee bëri ëpp ma ko te man nag gëm naa ne maa ko dàq bëri damaa ko ëpp doole te bu jour làmb jaa dinaa ko woon. jaa luur la de. waaw yow man damaa faare ma luur benn luur. si luur yi sax laa gën a ay keroog bi ma ne ko Fils de Balla la ngi lay nuyu daa ree ne ma bàyyi ko foofu rek maa ngi ko gis ci dëkk bi muy wax waaye bu arbitre tëjee barrière yi. bañ sifflé ba mu dara desul lu dul man ak moom su ma ne ko Fils de Balla yem ma fii dina ma yem foofu. <laughs> moom xanaa daa jàpp na xale lay bëreel xanaa. <laughs> daa jàpp na xale lay bëreel. général moo gën a xam ne combat chaque jour ñuy gisante man ak moom. moom kay moo la gën a xam sax ndax fi mu toll nii li nga ndékkee tey général xam na ko man loolu leer na ma ndax keroog wax na ma loo xamante ni man sax yëgu ma ko nee naa barki démb da doon tudd te mënoon naa dem mais xam nga rek. yaa dara man loolu kañ bu ma ko. dama amoon doom doom ñeenteel loolu lu si nekk sama jabar la. am na droit am amee doom mu ñeente ko. Mhm. loolu bu jour waaw dina ko wan na ci làmb ja dina wan ndax man dama xale laa wala mag la nee na daal lu tax lu tax ñëwoo ci tudd ba mu ne ma noonu dama xamoon a jàpp mais dama doon waaj a dem. buñ dugg ba ci géew buñ duggee ba ci géew ba dina xam ne xale dina xam ne xale lay bëri bëriwul ak mag yow mu jàpp loolu de. Fils di nga xeex ak euh, général Malika ngeen taxaw arbitre ne prip nga samp say tànk suul mu suul ay tànkam ngeen xeex. dégg nga la xam dóor ba sa morom tëdd di nga ko gis ci làmb ji dóor ba moromam tëdd laa di ko gis ci làmb ji général combat laa koy mën nar a humilier général naa ko wane mënul dara ci combat bi. daa mel ni da ngaa xeeb général nag. Oh. koo xeeb de. kon du ma xeeb sama moroomu góor mais moom dafa jàpp làmb ji yow yo noyoo noyoo la làmb ji. Hmm. te moom dafa war xam na combat. tey da koo ba tey nee na ma date bi lay xaar rek bu ñëwee mooy loolu. am nañ date koy date moom. date ba lay xaar bis bi jot. waaw. laaj dina dugg ci làmb ji ne nekkati li ma foogoon amul lañ maa nax moom. daan na dugg ci biir làmb yi nekk ne man dañ maa nax. diggante daaw de moom lañ jox mbër bi mbër meilleur lutteur euh, de de ne moom lañ ko jox. dara loolu dara simple la rek ñun bëri ci bëri dóor lañ nekk nekkuñu ci simple bi de. ah simple bi mu ngi ciy def simple bi moo indi door loolu si loolu si côté am la. mais arène bi def fi loo xam ne man defuma ko bu dee victoire maa ko ëpp victoire maa ko gën a ñëw lay defet moom ñu ko daan ñun bu ñu doon ne la sax mënuñu maa daan man ay àggu ñoo ko daan. ah xeeb agogo waaw ah, yow. dama daan xool ay agogo ñoo ko daan moom mu ngi cee quatre défaites. moom. kii daan na ko agogo daan na ko mu seen junior daan na ko def naa ak kii MC gaz MC gaz xaw ma am na ko quatre défaites daal la am. Mhm. léegi moom général lan la mu ne lan mooy forum. non jarul ma koy wax loolu dañ koy nëbb rek. waaw mu noonu lii leex mu ñëw jour làmb ja changé ko. moo tax jarul wax dañ koy nëbb rek ba jour ba. waaw bëgg bàyyi ñëw def ko dugg ci sa. lu mu def ma yàqu ko. te prip laa la wax ma dox ci kawam. général prip laa wax ma dox ci kawam prip. arbitre ne prime nga dox ci kaw général Malick. kon bu jour baa ngeen xam kii fii sa baal bu jour baa ngeen xam li ma capable bu jour baa ngeen koy xam. ne suñu diggante ba génn une minute du ko xamay te dox ma ci kawam. yéen ku dàq xeex. lépp jàpp naa ne ko ko lépp jàpp naa ne maa ko ko dàq. général amul danger général dégguma awma dara lu may moytu dara lu may moytu ci moom. awma dara lu may moytu ci moom xale laa ko moom ëpp ma doole moo tax dara lu may moytu ci moom sama moroomu góor amul dara lu ma lay moytu du doole du dara du galaaj du dara moom combat bi si galaaj la ko yëg lu muy liggéey yëpp xam naa ko lu muy liggéey yëpp xam naa ko. moo la ëpp gàllankoor. non ëpp moo ko sax mais bu jour baax la ñu xam. làmb ji kat moom mooy loolu moom général général boobu na gemb moom. kuy wàcc ci làmb simple. bu jour waa ngeen xam. nee sax butéel nga ak benn benn laar. benn butéel laam ak benn fas rek te sëñ bee ma koy jox rek sëñ Moussa ma koy jox rek benn butéel ak benn fas rek laa am. mais hmm. bu jour waa dañu xam maak moom ñu xool di ngeen di ngeen teg seen bët bu baax. ma bëgg a xam. sérieusement yaa ngi Général Malika kan moo ëpp doole parce que gis naa la gis ko. man de jàpp naa ne maa doole. man jàpp naa ne maa doole. ba ma koy daan. kon moo dàq bëre. maa dàq bëre Général mënul bëre. général def rëg rëg daaw. waaw yow bu ko pala bu la plaqué bi moom jàpp naa ne laa daan moom. plaqué bi moom rek la dese. loolu rek la dese ci bëri bu la moom nga résisté ko mooy làmbam yàqu na de day taxaw. ndax du xeex ba du bëre ba dañoo waxante dëgg général keneen gis mu gis mu daan ko ci kele wala ci dara bu la fàqatee plaqué la loolu la am ci làmb mu kal la plaqué la waaw te ñun liggéey nañ bu baax kenn duñu ay plaqué ñuy daan wala ay caxabal yooyu bi ngay mbëru bawal bi de neewoon na la zongale rek nga am mu ñëw ba ca làmb ja nga zongale. baax na maa kook duñu benn nag man xale laa maa ñooñu duñ benn. yor sànq ba léegi yaa ngi naan xale laa xale laa da nga bëgg a kon général paa la. du ba mais sama morom la ay morom lañ mën ak moom. xale ko mag général isa maguma man xale xale laa de. nga. man 93. parce que général la nga waxagul atam ba wax ko du koy dëpp. moom sama licence moo si ne musuma jugement ci àdduna xaw ma nu ñu defee jugement. 93 laa bëri. ki démb dégg naa fan yii yëpp yaa ngi mbëru géejawaay yéenay ànd dem saal di entraîner dafa mel ni combat bi am na fu leen toll ku ci mel ni Balla gay 2 la Degueur 2 Alioune Seye ak euh, nu mu tuddati Papa Boy Djiné gars yi daal mafia bi. loolu yàgg na loolu du tey loolu du lu bees loolu moom lu yàgg la mais combat bi gars yi duñ koo bëgg ku ci mel ni la Degueur 2 combat bi du ko bëgg barki sëñ Tuubaa moom moo gën a bëgg sax combat bi la Degueur gis naa loolu. barki moo ko gën moo ma jëlee si fii moom moo yóbbu entraînement ma ñibbi barki sëñ Touba Mbacke combat bi da koo bëgg kooku dama koy bàyyi yàlla rek ndax gis naa nu mu sonnee ci combat bi te gis naa nu may taxawee barki sëñ Touba dama koy ñaanal moom combat gaaw rek ñu fay ko borom mu ngi may jàppale ci côté bépp. bàyyul ci côté bépp bépp moom ma jàppale di ñëw sama gàlle di ma nemmeeku di ma xool si barki Serigne Touba Mbacke mention spéciale à Lac de Guiers 2 maa ngi koy gërëm bu baax ak Zal Ndiaye Zal doomu nday maam boo jaaw ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax. combat bi ni ngay waxee ni dafa mel ni am na lu la jaral làmb ji tukkee góor ci. non bii góob ma tukki de góob ma di naan fii laax bu ndax lis dis bëreetul mënoo fee tukki. moo tax mais gis naa sa benn préparation boo xam ne xaw ma fan la mais ñi la wër ñëpp ay tubaab lañ loolu fan la. Eh, loolu Maroc la woon Maroc la woon boobu maa ngi siy gërëm sama bu baax ma sekk Thiam. borom fondation Rasoul moom ma yóbbu woon ma tukki maa koy gërëm bu baax a baax moom. Mm-hmm. nga loo fa liggéey. liggéey naa fa lépp a ah, foofu amoon na ay coach foofu ñuy teg ay coono yu métti moo tax gis nañ bu ñu làmb ja résultat yi dafa yomb moo tax làmb daal lépp loo gis rek liggéey la. Hmm. secret mbër daal mooy liggéey. liggéey loolu rek liggéey la rek amul leneen. mystique mos na laa jàpp ci làmb. mystique santiru guma ko de. laa jàpp mbër ci gàllankoor. Ah, man man man aw ma galaaj man amay benn fas ak benn fas rek laa wax man aw ma galaaj benn fas rek laa man naam amay muslaay rek benn fas rek laa am dem bëre jàpp daan. Mhm. date bi ban date ngeen bëre. le 21. le 21 ban le 21 mars. mars la bëre. ñëw na daa deux mois moo ci des. le 21 mars. drapeau weer boobu moom ku ci bëre jigéen ñi nga ko bëre. sar jigéen la de drapeau jigéen la moo tax dama koy daan may ko sama yaay. sama yaay laa koy moy mais tamit di gërëm tamit di bëggee waa camp waa euh, ñi nekk ci jeel bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax ñi nekk ci jeel bi waaw waa Cap Manuel ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax waa 100 mètres waa kii Forbe ak kii Campenal ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax di bëggee ñu fa nekk ñëpp di leen ñaanal yàlla génne leen foofu bañ delluwaat seen activité. waaye ban écrit écrit waalo wala école de Père Balla Gaye. écrit Balla laa nekk. sa combat yëpp foofu nga ko bëri. foofu rek laa xam. il faut laa bëree sama yëpp di bëggee tamit waa école Balla bu baax a baax ku ci mel ni suñu coach Lamine Golo ñu ngi koy bëggee bu baax ak mbës ak mbëri nekk école Balla Gaye yëpp waaw di suñu ñaan ku am combat yàlla may la ndam daal. Mm-hmm. di bëggee suñu gars yi nekk foofu yëpp ñoom lees Balla Gaye do Sokosim ñoom ñëpp di leen woo tamit. Mm-hmm. grand contre petit moom lañu wax ci ren ci saison bi ci làmb grand contre petit. doon na loo xamante ni Balla Gaye 2 Boy ñu ngi koy wax. Mhm. Modou Lo ñu ngi koy wax diggante mag Ama Baldé ne taxaw na euh, guy gi ñu ngi wax diggante moom. Gris Bordeaux wala Eumeu Sène. Mhm. yow noo ko gisee loolu. ah làmb la loolu làmb la ay làmb la de mais ñun moom wax dëgg yàlla waa Guédiawaye ñun d'accord ñu Balla Gaye Boy Niang tax d'accord ko. boo ñaa dugg géej waaye raatale ñëpp amul kenn ku ko ci daan wël mi ngang ba la dëggeen jàppee nu mu def nee na moom kenn tëddul ci dënn bi te kum daan géej waaye dalaa may loxo na la jugal waaw léegi moom ba mu def te moom moo xale moo ñaan sens la dëggeen dafa ñëw def si la dëggeen échec la nga def la dëggeen échec bëgg ñëw bërëg Balla Gaye loolu laa mën a nekk ah yéen est-ce que est non non no mais est-ce que du est-ce que du non defal ndànk mais xam nga làmb tey ku ci mel ne Lac de bu ñu juumut moo jiitu ba Boy ñang ci làmb moo ko njëkk a bëree bu muy bëree Boy Niang bëreegul waaye bu ñu bëree ñoom ñaar li ñu séentu woon ci làmb ja gisuñu ko ñu ci bari ci làmb jàppoon nañ ni buñ jàppantee Lac de Guiers daan ko làmb amul xale ah làmb am na xale am na xale ah amul xale ah xanaa waxoon léegi du grand contre Lac de xam naa ne bi mu dajee bi mu dajee Yékini da koo daan. ba mu dajee Moustapha Gueye. da koo daan yooyu na moo nekk xale. boo ñaaw tax moom moom mi ñaan sens wër fu ne mu wax fa. ne jox leen man la dëgër ñu jox la ko la dëgër mënoo koo yëngal un pas mënoo koo yëngal. ba pare nga bëgg bëri Balla loolu daa mën a nekk. la dëgër mbëri ku ko ci bëgg a daan di nga liggéey ba dee de. barki Serigne Touba Mbacke ku ci bëgg a daan. billaay wallaay di nga liggéey bët dee. xam naa ne booy caaxaan yi ñii mënuñu ko daan booy yi nii nii mbër mbër mun ñoo mun ñu ko daan barki sëñ Tuubaa Mbàkke mun ñu ko sa daan. booy yëpp yaakaar la de guerre keroog Garga Mbossé bi mu jugee États-Unis wàcc la mu njëkk wax mooy jox leen ma Lac de Guerre 2. kooku dafa dof yorul bàyyi ma kooku waaye. naan ay Lac de Guerre yow doo Sa Thiès nga naan moom Sa Thiès mooy lekk. moom boo daan tëdd. waaw mu naan boo ñaaw la dëggee lay laaj. Tanzanie la jógee yokk doole yëg boppam. mbëri xaw ma ndax ku si jógee États-Unis rek la kii garga na bëri ay moromam moo gën. Oh. na ay kii. la dëggee la dëggee rek moromam. mais garga la dëggee yoonu làmb la. làmb na loolu yow yaa a dégg nga la. amateur yi nanguwuñu loolu. la dëggee nekkul nekk di béy booy sens la dëggee dafa war a bëreeg mm-hmm. bom kii Eumeu Sène daf ko non non un la non benn match nii la ak benn kii waaw loolu du victoire sax loolu moom gars yi ko sax non jàpp tànk bi dëj ko mu to eh, xoolal fils de balle bàyyi léegi nañ ko ko may amul problème ñoom ñaar dañoo war a bëri revanche war naa bëri Gris Bordeaux Gris Bordeaux lu ñu xaar pour bëri la de lay xaar pour bëri la de laa bëgg a xam wala moom courant bi da koo bàyyoogul ba léegi courant bi da koo bàyyoogul ba léegi na bëri ak moom bu Tapha Tine la de guerre na ko revanche dañoo war a bëri yooyu ay combat mais ay Garga Mbossé nga may wax loolu day combat la dëgg boo ko xoon boo ko woon nan ko promoteur bu ko naan ko Garga Mbossé rusul bu la rusul wax loolu ñaaw de. barki sëñ Bamba billaay waaw yow kooku day moromam. yaa ngi dëkk fan ci dëkk. man Géejawaay laa dëkk amoo. amoo amoo quatre amoo cinq laa dëkk. xanaa da oh, man ah, du ma ragal lool. amoo laa eh, bi ba léegi daje ngeen yéen ñun gisante ñoo bokk fi ñu liggéey bi ñu entraîné démb rek gisante nañ démb. mu lu muy wax. ba lay nuyu jaay ba di ko moom. mais di ngeen nuyoon de xanaa. seq ñu sax ay nuyoon de ma ak moom. mais romb rek ku ne aj. barki sëñ ñoo bokk benn liggéey bi ñu entraîné ma ak moom chaque jour. chaque jour démb rek démb rek tase nañ démb. kon nag boo boo gisee général boo doon entraîné benn da nga yokk fukk. non man li war entraîné entraîné. li mu war a amul lu ma yokk li mu entraîné. ban napp ay napp yooyu ay deuxième la li li war ci biir géebu la li xew ci biir géebu lay xewee mais ay napp yu amul sens li xew ci biir géebu lay xewee. dara li jëndiwu ma ko sax bu bëggoon làmb ji xam na sëriñam lañ tuddee drapeau bi bu bëggoon ba biir kër sëriñ bi ñu bëree fa combat bi. sëriñam lañ ko tuddee. waaw yow France kon. Ah, xaw ma Serigne booy euh, xaw ma Serigne man ba rek laa. làmb ji li ci laxasu moo bëri mu que mënuñoo wax léegi moo dax dañ bàyyi bu bëri ba pare doo ko wax mais làmb ji li ci laxasu dafa bëri. ci yow wala ci moom. non non nañ ba jour rek ba pare ba bëre ba pare. xam nga non promoteur promoteur yoonam nekk si promoteur am intérêt rek lay xool. Hmm. yoonam nekk si. Assane ñu ngi koy gë bëggee bu baax di ko sant. waaye li laxasu ci làmb ji yëpp mënoo ko wax. ñu ko wax léegi boog ñu bëre pare doo koo mun a wax xam ngay bëre ak mbër jël làmb ji tuddee ko sëriñam xam nga loolu neexul. mais sëñ Fallou yàlla baax na. yow li nga bëgg wax promoteur bi nga ko bëgg a wax mais ñi mënoo ko wax fi mu toll nii. parce bi moom moo tëgg làmbam ci xaalisam xool parrain bi ko neex mu tuddee ko ko léegi boo nee ñu jël parrain bi tuddee ko sëriñu kii dafa mel ni dafa bëgg mbërëm jël drapeau. du ci neex la de. dëgg lu ma wax bu soñoon ñu dem ba biir kër sëñ Abdoulaye Diop xaas ñu bëre fa combat bi. mu ko foofu. foofu duma ko bu mu bëgg dee. daaneel ko foofu jël drapeau bi bayaat ko wala doo ko nga naan ma ko jox sama sëriñ man sama sëriñ laa yóbbul drapeau bi xanaa ma mbokk yi dégg ngeen ko kooku mooy Fils de Balla macha allah ci bëre ba ci xam-xam bi ci technique bi mu ngi nekk école de lutte Père Balla gay xale la boo xamante ni ci làmb la bokk te bàyyi leen ko xel incha allah di ngeen ne jiili waxoon nañu ko Fils de Balla waxtu bi ñu amoon jot na xanaa ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw waaw dañuy bëggee rek di gërëm ñëpp ku si mel ne suñu waa saal bi. di bëggee bu baax a baax di ci combat bi mu jàpp ci. Lac de maa ngi lay woo Balla maa ngi lay woo sama papa ma sekk càmm maa ngi koy woo mu ñëw jàpp ci combat bi. père Ouza maa lay woo sama père Omar Wade sama papa Kéba Kanté Kéba waaw combat bi sa combat la. waaw bii nag bëgg naa nga taq ci rëbb combat bi sa combat waaw di bëggee ñëpp di bëggee sama gars yi sama seex yi Bamba Kanja ak Laat Kanja ak Kanja production di bëggee ñëpp di bëggee sama gars yi ma àndal ñoom Gora Pota Garna yéen bu diis suñu waa kër yëpp di bëggee sama benn mag papi di ko bëggee bu baax landing maa ngi koy woo sama gars yi sama mag yi Ismaïla ñëpp di bëggee waa amoo 456 yëpp di woo Ousa tamit mu jàpp ci combat bi Père Ousa Boniface di bëggee tamit sama goro maa ngi koy bu baax di ko sant waaw ak sama soxna maa ngi leen woo bu baax a baax di leen bëggee ñëpp di bëggee ñëpp bàyyiwuma kenn ku ma lu tuddul rek dama laa fàtte daal di bëggee tamit waa Jaswara bi di bëggee waa Jaswara bi tamit di leen bëggee bu baax sama gaa yi nekk foofu ñoom Bamba Cuun Meng ñu ngi leen woo sama douanier yi tamit l'international Wilane Pierre combat bi seen combat la ñoom laa koy bëreel waaw di leen woo ñu yow taxaw ci combat bi di bëggee ñëpp di bëggee képp kuy bëggee Fils de Balla rek maa ngi lay woo bu baax a baax nga ñëw jàpp ci combat bi di woo ñoom Alioune Sall bay di sëy képp kuy autorité waaye rek ñu ngi lay woo bu baax ku ci mel ay ñoom Daaro Seck ñoom Pape Mama ñu ngi leen woo bu baax a baax a baax a baax bàyyi ñu kenn sama gars yi ñoom Baye Samba sama boy di woo tamit waa kër Pa Alé Ndiaye di jaale tamit Aziz Ndiaye ku waa di ko jaayal soxnaam si ndax kooku mam bind nit ku baax la ñu ngi koy jaale bu baax a baax waaw di woo Masata Baye Ndiaye Khalil Sora Badou di leen woo bu baax a baax ay ñoom Ibnu Ibnu ñu ngi lay woo si combat Ibnu nga dugal sa loxo bu baax a baax di bëggee tamit Pape Pape Matar Jador maa bu baax Pape Matar Jador sama waaye sama directeur ak tubaab tamit waaw doomu ndeyu Kouensa tubaab bu Kouensa maa ngi koy woo mu taxaw ci combat bi ñu jàpp si. ñëpp géej waa yëpp daal bàyyiwuma kenn daal maa ngi bëggee ñëpp di géej tamit suñu tamit càmm amuñu fay ñu ngi koy bëggee bu baax la de Guiers 2 mention spéciale Golo Mbës Youssou Ndour dama ñaanal yàlla sama doom nday mu nga am combat waaw di bëggee mbër géej waa yëpp di leen woo ne combat bi seen combat la jërë ngeen jëf dégg ngeen li nga xamante ni moom la Fils de Balla wax waaye am na ku ma amante woon fii rendez-vous dafa daw du ma wax turam. Eh, yaa ma gën a gis di nga ñëw dinaa ko jàpp. dina ñëw sa waay am naa dafa jàpp rek mais dina ñëw. waaw kon yàlla doon jàpp rek dinaa la jàpp te man yow dinañ daje incha allah jërë ngeen jëf mbokk yi foofu lañ leen di tàggoo ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb jaa jëf.